est-ce que mooy représentant taxawu dans la conférence des leaders. mais nee na Khalifa est d'accord. c'est-à-dire loolu waxam la franchement waxam la. mais Khalifa aussi rien ne l'empêche mu démentir Barthélemy bu fekkee Barthélemy lu mu wax. amul man de lu de luñ may wax looy man sax dugguma ci jëm leen défendre wala may wane ne d'accord na ci wax na ko wala wax ko mais dama bëgg a wax ne maanaam man mënuma joxe appréciation ci ki ka wax habilité wul. parce que fa la bokk mais du kàddoom boobu mooy tax mu engagé taxawu ne moo jël position bi parce que def dañ ne seen base mais jëluñ décision officielle parce que yeneen parti yëpp muy PRP muy ànd saxal liggéey bu ay bu ay dëmbooc muy euh, muy muy muy muy Pastef à travers conférence de presse Ousmane Sonko ñëpp dañu def ay communiqué muy pur wala ñu def conférence de presse ñi habilité taxaw wax ne lii mooy seen position claire te dañu koy motiver du kenn nit mooy taxaw ne génn loolu mënu mënul tax man ma ne engagé nañ taxaw déedéet taxaw li koy engagé mooy taxaw jël une position officielle à travers un communiqué donc à travers une conférence de presse en tout cas voix bi habilité wax ko. fi mu ko war a waxee mais dafay dafa dafa weesu Pape Alé euh, laaj xalifa mu ne ko moom dina dem. moo ko wax. waaw. waaw jeex na ko war a apprécier dañ ko apprécier c'est pas débat.